mbokk internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar jamono jiñ toll nii activiste yi ñoom ñi ngi génn ci mbeddu Dakaaru njaaj yi li ko waral du leen lu dul ñoom dañuy ñaxtu li nga xam ne moom la président Macky Sall nekkee ci réew mi maanaam am ay détenus politique ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso yi te ay activiste ñu ci bëri leen fa dugal du leen lu dul ki nga xam ni moo di le président Macky Sall te dara waralu ko lu dul ay intérêt boppam politique dong moo ko tax a jóg moom président Macky Sall ndax ña nga xam ne ña nga fa ku ci mel ni Abdou Karim Gueye Xurum Xaq Cheikh Omar Diagne Ousmane Diagne Papito Kara Kara ak ñu bëree bari ñoo xam ne la leen fa dugal nekkul lenn lu dul ay manigance yu président Macky Sall ndax dafa jàpp ne ñooñee dañ koy yàqal politiquement alors que nag moom fi mu nekk nii la nga xam ne moom la nekk di def daf koy gën di suuxal moom président Macky Sall ndax sénégalais yëpp ñoom ñoo ko mere ba tax na ñoom activistes yi ñu ngi def seen ab marché te tôt ou tard dinañ am gain de cause ndax président Macky Sall dina wàcc ci nguurub Sénégal lépp daal di delluwaat la normale mbokki internet yi safoo seetaan AGT news abonné leen suñu chaîne saa su ngeen di am xibaar yu wér